Exceptionnel, le président Ousmane Sonko qui lève les bras en signe de reconnaissance. Je vous l'avais dit, le rendez-vous de Mbaké aura bien lieu. Le rendez-vous de Mbaké est là. Il est là. Mbaké a dit oui. Mbaké a dit oui au président Ousmane Sonko. Drapeau Sénégal va flotter. Drapeau Sénégal baa ngi flotté. ñoo ngi Mbaké Bawol président Ousmane Sonko nous na ci xam naa waa kër ñàkk jom léegi ñu ñëwaat chargé waat ndax lies la ñuy bañ sénégalais yuy fii fii ay sénégalais yuy dulul neex la ñuy bañ te dafa neex président nee na na oto yi avancé président nee oto yi déglu leen leen woy bi lancé un projectile direct sur le véhicule du président Ousmane Sonko Limom. Nouronak, tentative d'assassinat Mais ils ont tiré directement tir tendu sur le véhicule du président Ousmane Sonko ñoo ngi nii xale yaa ngi jàmbaarloo ak ak Nho. Touba jeunesse Touba yëpp jox na leen jox na Seydina Ousmane Sonko boppam waaw lii moom li mu defar defal ndànk lii jeunesse bi Sonko la ne àndal li mu defar ndànk li mu defar defal ndànk dellu sa xel yi bu defar li mu defar da ngay delloo si sa xel. Sonko defal ndànk xam nga gars yi gëmatul la gars yi wet na la bu defar